bonjour chers euh, téléspectateurs comme niñ ko baaxoo di def altine ba alxames ci waxtu wi à partir de 13 h ñu ñëw yaatal leen wala waxtaan ak yéen wala partagé ndoo ak yéen li xew ci biir internet bi li li fi jot a xew bari na diggante weekend bi ak léegi yëf yi dafa gaaw léegi dafay dem ci rythme bu doy waar dinañ ci ñëw euh, yaatal lépp ma ànd ceeg Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay ziar euh, Mamadou di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo faral chaque fois comme ni ma koy waxee. di mhm. seetaan li nga xamante ne moo di les la TFM mais plus ñi nga xamante ne. depuis bi émission bi li si net bi euh, euh, commencé ba léegi ñoom du ñu raté benn épisode bi muy si euh, suñu plateforme yi di si télé bi donc maa ngi leen di nuyu bu baax waaw lu ñuy wax tey du ma wax du ma wax dara tey man maa leen di wax ndaxte avant ñoo commencé émission bi bon internet la dañuy wax dañuy partagé ñu nag ñu nag yéen a yem comme ni mu demee ci biir su ma posté sama photo comme moom mairie ni mu koy defee li muy posté photo bari na bu dugalee photom parfois am ay commentaires tey man maa leen di wax au lie yéen seen commentaire man ma jàllale ko man maa leen di wax mairie lu mu fi nekkee sànq ba tey da doon laajte ba xam ndax weexul ndax euh, puudaram baax na avant moo génn ci télé bi après yéen commenté leen ngeen xool mairie tey lu mu lu mu lu mu lu mu ni mu mel ba xam ndax baax na internet yi ci boppam ñoo ñooy tey maa ngi xaar seen réaction sur suñu page Facebook Twitter ak Instagram comme ni ñu koy defee te euh, page Facebook bu télévision Futur Média wala hashtag bii di sunu net sunu hashtag bi nga xam ne moom ngeen di partagé jot nañ nag on a reçu beaucoup de vidéos euh, ak ay images ci week-end bi mairie ñu jógee ci balaa euh, actualité balaa mhm. ñoo dem ci site d'information yi mhm. ni ñu gën a aussi tamit ndaxte situation euh, Covid bi doy na waar te gis naa ne ci réseaux sociaux yi muy Twitter muy Instagram muy Facebook ñëpp a ngi delluwaat di gën a sensibiliser actuellement sénégalais yi surtout les jeunes ci réseaux sociaux yi. waaw effectivement comme ni nga ko dañu war a sensibiliser waat parce que depuis bi fi tabaski bi jógee ba léegi dafa mel ni dañu assister à lu ñuy tuddee benn explosion de cas. Mhm. ndax dafa mel ni affaire yi dañoo dafa nëbbatu woon mais bi tabaski jàllee nag ba léegi. Mhm. affaire yi dafa daal di euh, jéggi dayoo looloo waral tax sax euh, ci week bi ñu génn nii ci ajuma bi ministre ministre de l' intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. daal dina jël ay dogal euh, ko def li ñu naan application immédiate mhm. mais ci kaw loolu tamit ñëpp instant bi commencé waat nañu yeewu ndax dañu jàppoon ne que xëy na ñu ngi doon nelaw tuuti mhm. mais ñëpp ñu ngi yeewu actuellement di sensibiliser waat muy jeune muy adulte euh, ñëpp ñi nga xamante ne euh, ñoo ko mën ñuy commencé waat di defaat li nga xamante ne moo di geste barrière yi ñu waxaat ko mooy li nga xamante ne mooy takk masque bi wala nga jël sa gel wala euh, sa benn solution bu nga xamante ne moom ngay daal di piis li nga xamante ne mooy sa loxo yi pour toujours euh, di daal di euh, set si say loxo ay aussi proté protéger sa bopp et ci kaw loolu sax Mamadou defe naa ne dañuy dañuy lancer déjà hashtag bi ak sunu net Mm-hmm. ak euh, ak lépp li nga xamante ni yéen ay jeunes ngeen approche communautaire la ci quartier yi ci euh, ak association yi ay yi lépp loo leen di def loo xamante ni ay image la photo wala vidéo ci sensibilisation yi quartier bu ci nekk envoyé ñu ko ñun dinañ ko partagé ñun suñu bopp ñu lancé défi bi ñu xool mm-hmm. ban quartier actuellement mooy jël euh, mooy jëppee Mhm. waaw ñu lancé défi bi fii ak émission bi li xew ci internet hashtag bi sunu net la da ngeen ko ciy boole vidéo de sensibilisation wala message de sensibilisation wala vidéo yi nga xam ne da koy partagé seen koñ bari na ci nag ay euh, action citoyenne yi nga xam ne gis nañu jeunes yi ñu koy def bari ci challenge sax déjà lañ ko lancé gis nañu mhm. yenn jeunes yi nga xamante ñoo nekk fële ca kunun ñoom envoyé nañu seen ay ay image euh, mairie exactement ñu leen di woon ay jeunes yoo xamante ne dañuy faral di toppatoo seen quartier mbir mi nag comme euh, ñu ngi wax ci waxi Covid euh, ñi nga xamante ne benn association la de jeune bi nga xamante ne mu nga fële ZAC Kounoune bu Rufisque ñoom ñoom ñoo def defee ay actions citoyennes euh, en faveur du coronavirus. Mhm. maanaam ñoom seen wàllu bopp seen biir quartier dañuy commencer defar li nga xamante ne moo di ay masques en tissu daal di ko jàpp di ko distribuer seen biir koñ. Mhm. suñu mënee xool image avec la complicité de la régie en même temps. ñu gis ñoom ñu ngi nekk di euh, partager li nga xamante ne mooy masque yi masque yi nag ñoom ñoo ko defaral seen bopp dañu ah. dem ci tailleur defar ko seen bopp mm-hmm. euh, dal di pare nag daal di ko jàpp di ko distribuer foofu seen koñ jóge fa set setal mm-hmm. di distribuer aussi li nga xamante ni moo di gel ak li nga xamante ni moo di ay masque noonu la ñoom waa ZAC bu kunun bu nekk mm-hmm. fële ca Rufisque dañu envoyer seen ay image ak hashtag bii di sunu net boo leen ko envoyé ci Twitter bi ngeen boole ci Eh, groupe Futurs Médias wala TFM dinañ ko gis wala ci Facebook boo leen defee hashtag bi sunu net ngeen identifier ñu ci saa si dinañ gis vidéo yi wala ñu gis image yi ñu partage ndaw ko ak yéen téléspectateurs mais surtout yéen internautes yi nga xam ne yéen scotché di ñu suivre ci réseaux sociaux yi bépp réseaux sociaux benn mën nañ jàppale réseaux sociaux yëpp ah mën nañ jàpp Instagram mën nañ jàpp Facebook mën nañ jàpp Twitter mën nañ jàpp yeneen yi ba ci YouTube gis naa ni yenn yi mhm. ngi def ay vidéo mhm. di ko partage ci YouTube bi nekk na lu am solo li nga xamante ni euh, jàpp nañ ni actuellement ndaw ñi dañ ci dellu ci waat te loolu nekk na lu am solo waaw lu am solo la euh, Mohamed loolu c'est des actions yoo xamante ne c'est à encourager mhm. te ñun fii en tout cas du ñu tàyyi mukk di leen gën a encourager li ngeen di def parce que li ngeen di def defaloo leen ko état bi leen ko keneen mais seen bopp ngeen koy euh, njëkk defara defaral balaa keneen. mais Sénégal sax moo ñu ñor te gis naa ni eh, ndaw ñu bëgg nañ Sénégal te loolu nañu gën di sensibiliser rek duñ ci tàyyi. Mhm. dañu yaakaar ne yëf yi day gàtt mois de mars ba léegi mais gis nañ ni yëf yi dafa gën a situation yi mi nekk cas communautaire yi ay 113 cas gis nañ ko sa cas communautaire. ci mhm. démb wala bët ci démb. Mhm. Euh, tey jii ñu ngi ci yeneen nombre yi nga xamante ni sax eh, nekk na nombre yi nga xam dañu bëgg vraiment mu mu mu wàññeeku leneen li euh, mairie am na beneen affaire bu xew ci week bi xam naa ni jot nga ko. jot naa ko bari na tamit internautes yi nga xam ñoo ko partagé di ñu ci identifier ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram muy euh, médicament bi nga xamante ni jot nga ko waaw jot naa ko de man dama la ko naroon laaj sax parce que demoon naa ba li di la ko yónnee. Mhm. après je me bàyyi ñu daal di ko tegal li nga xamante ne moo di internet yi. Mhm. ñu mën ñoo wax médicament bii di levofloxacin. Mhm. si je prononce bien waaw waaw waaw. nee nañu léegi nee nañu moom mooy. Euh, faj euh, Covid 19. musul am benn médicament buy faj benn Covid. sama yaay yónnee na ma ko de. ñëpp maire yëpp surtout maire yi sax ndax man sama yaay yónnee na ma ko 20 fois. ah ma ne ko amul benn fi ba fi ñu toll nii coronavirus amagul garab. il faut mu leer jarul laajte médecin jarul laajte dara. il faut mu leer coronavirus amul garab. lii garab bi fi mu ne nii mooy takk masque yi. raxasu ba set respecter mesures barrières yi. te wàññi déplacement bi. donc pour maire yi nga xam ne jot nañu audio bi am na beneen euh, image bi plus mu ànd ak benn audio boo xam ne kenn mooy expliquer que ni voilà euh, coronavirus léegi nee nañ lii moo koy faj te lii sax nee nañ en réalité bi gëstoo tuuti tuberculose lay faj. loolu moo nekk comme ni ñu koy defee rek lii xew ci biir internet bi parfois dañuy jël def fact checking. Mhm. Euh, vérifier bu baax laajte am na médecin yi nga xam ne laajte nañ ko nee nañu lii pour tuberculose moo ko tax a jóg mais pas du pour ay coronavirus wala dara ba fi ñu toll nii. Mhm. dara amagul comme garab mais corona day faj coronavirus. Mhm. Mamadou Ndiaye man sax li may wax nii sax suñu yaay yi laa koy waxal gis nga tant que déggoo leen officiellement je dis bien officiellement maanaam docteur euh, taxaw ci télé. wala si réseaux sociaux yi wala OMS si boppam daal di génne daal di ne garab gii ngeen di gis moom mhm. mooy faj li coronavirus leneen lu ñu leen mën a yónnee wala leneen lu ñu leen mën a euh, euh, jox bu leen ko jëfandikoo te bu leen ko partagé parce que dafay yokk ci li nga xamante ne lu ñuy wax désinformation maanaam fausse information information bu wérul ndax ni ñu koy partagé noonu la ko keneen di partagé keneen di partagé te ñoom bu ñu amul information bi mën nañ dem ba xalaat ne que ne loolooy faj coronavirus yow tamit am naa sama sama yaay laa gën a yëpp moom boo xefee bu kiiwee dañ am na dañ ñu koo jënd denc yaakaar ne lii day faj fi ni ñëpp jaxasoo amagul benn fe garab bu ñu wax ni mooy faj coronavirus loolu il faut mu leer xam naa ci mhm. semaine bi dinañ ci ñëw ak benn docteur euh, ñi ci comme ni koy defee avis d'expert bu defee vidéo nañ seet sax ci internet bi mhm. sculpté un peu bu amee benn docteur wala koo xamante ne xam-xamam màcc na ci mbirum médecine mu def benn vidéo partagé dinañ ko jël Euh, partagé na ko ak yéen wala ñu jéem a contacter benn docteur wala koo xam ne xam-xamam màcc na ci. Euh, mu indi ci ay leeral loolu mais en tout cas li ñu ci mën a wax mooy fi mu ne jamono ji amul benn comprimé wala garab bu ñu wax ne day. faj coronavirus amul lii faj coronavirus moo di ñu respecté mesure barrières yi mhm. te takk suñu masque yi moo gën te wàññi déplacement yi surtout ak ndaw mais nag ci mhm. week bi mhm. gis naa ay image yu am solo yoo xam ne ndaw ñi ñu ngi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi mooy ay image yu plagié gis image yu euh, like depuis bi nga xamante ni ministre bi jël na euh, dogal yi que ñu wàññi déplacement yi bu baax a baax a baax yenn euh, rassemblement yi ci yenn zone yi wala yenn lieux yi Euh, ñu wàññi ko gis naa ni plage yu Dakar yi aussi yenn plage yi comme nii. ils se sont vidés. Mhm. waaw avant dañ doon gis ne que xale yi ñëpp dañuy génn dem plage mais euh, comme l'atteste cette image là. Mhm. Euh, image yi ñu ngi wane que ne plage yi kenn nekku fa en tout cas vous avez vu il y a le gendarme qui est bien là en pole position daal di taxaw di surveiller di veiller à ce que arrêté boobu nga xamante ne le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye wàcce pour que ñu respecter li nga xamante ne moo di wàññi li nga xamante ne mooy fréquentation ci lieu public yi donc comme ni ngeen ko gisee plage boobu mi ngi noonu dafa vide daal di amul kenn kenn kenn euh, ku fa nekk. bari na réaction bi moo jot nii gis naa ni ñu partagé ko ak euh, téléspectateurs yi surtout suñu benn ak euh, internautes yi. benn internaute nee na mi ngi tudd Ndiol Ndeye faatu nee na il faut bien primer le quartier qui porte le plus de masques. waaw pourquoi pas ça aussi c'est une belle idée. waaw seen idée bu baax la à réfléchir la nekk mi ngi tudd xam naa Ndeye Fatou Ndiol. Mhm. nee na ñu ñu ñu jéem a primer euh, quartier yi nga xamante ni seetlu nañ ni ñoom daal ñoom ñëpp a ngi takk masque et puis euh, toutes les classes d'âge et sans arrêt waaw les activités de sensibilisation sont importantes ok merci beaucoup loolu mooy wane ni réaction yi bari na actuellement ci Facebook Twitter wala Instagram. Mhm. man maa ngi ubbi Facebook rek yem ci benn message bi nga xamante ne benn internaute moo ko partagé muy euh, Fatou ki euh, Fatou Ndoye Fatou Ndoye Ndiol wala Ndeye Fatou Ndiol. moom mu joxe xalaatam ci li ñu wax léegi mooy quartier bu ci nekk léegi boo amee de action de action citoyenne mooy mhm. sensibiliser raxas sa quartier bu mu set defal message nga posté euh, photo yi def ñu ci euh, identifier ñu ci ngeen taggee ñu ci ak hashtag bi di sunu net mhm. dina nekk benn hashtag bi nga xam ne gis naa ni ñëpp a ngi koy partagé actuellement ci réseaux sociaux yi boo demee Twitter da nga boole sunu net def TFM dinañ ko gis ñu partagé ko ak internautes yi ñu partagé ko aussi ak téléspectateurs yi waaw euh, Mamadou toujours dans la si même yoon bi ñu nekk nii mhm. xam nga ñu ngi wax léegi yëfu message médicament boobu nga xamante ne moom la ñuy transféré mhm. ma bëgg daal di dugg ci brèche boobu rek daal di surux si xamante ne moo di WhatsApp ci boppam mhm. ndax WhatsApp ci boppam moom it euh, pour xeex li nga xamante ne mooy désinformation mhm. maanaam li ñu naan fausse information mhm. moom dafa daal di euh, créer commencer créer benn moteur de recherche bu bees boo xamante ne dalay permettre yow en tant que euh, utilisateur de WhatsApp nga daal di xam ndax information bi lu wér la wala lu wérul WhatsApp nag mi ngi ñuy yëgal nekk à partir de cinq partages maanaam message bi bu ñu ko transféré au delà de cinq fois ñoom dañuy jàpp que loolu information la en tant que information il faut ñu vérifier ko surtout par rapport ak euh, li nga xamante ne moo di coronavirus bi nee nañ euh, léegi euh, li nga xamante ne moo di message yooyu ñu transféré suñ ko transféré à partir de au-delà de cinq transferts dañuy def lien OMS bi pour ñu xool ndax fekk news la vérifier la wala désinformation la te nee nañu affaire boobu ñu ngi koy daal di tester fi nga xamante ne moo di États-Unis Angleterre en attendant muy wàcc ñun ñuy dëkk. non loolu loolu loolu lu baax la ndaxte actuellement nii moom désinformation moom baaxul balaa ngeen a dara du ñu jóg ci di ko wax na ko xool xoolaat ko surtout ci réseaux sociaux yi ndaxte lépp loo partagé mu nekk information bu baaxul da ngay gën a lor ñeneen. surtout te mhm. léegi dañoo am benn stratégie ci biir groupe bi lañ koy dugal. Mhm. léegi foofu nit nit jël ko fa partagé waat science groupe bi nekk 20 personnes 20 personnes bu nekk partagé 5 personnes. ça gis nga ni muy yegg ni muy ça se multiplie donc heureusement que ñoom ils loolu nañ leen ko nañ leen ko toppal bu baax xool mhm. WhatsApp ni muy innover un peu ci situation yi ñu nekk moment Covid bi désinformation bi dafa bari loolooy waral ni euh, ñuy gën indiwaat defaraat jumtukaay yi ñuy xoolaat bu baax nan lañ mën a def ba respecter bu baax information bu baax bi surtout ci réseau sociaux yi mhm. leneen lii mooy gis naa tamit beneen stratégie wala beneen lu xew ci Twitter bi euh, hashtag bi sama dëkk la. Mhm. dama bëgg ñuy boole ñu ci sax léegi nañ si def boole hashtag bi sunu net. Mhm. ndax léegi nee nañ ku ci ne xale yi ku ci ne période yi xam naa gars yi dañuy nekk vacances am temps. amatuñu droit dem plage amatuñu def droit dem ci yenn kii yi. da dem ci sa village. Mhm. nga photo posté nga préciser sa village su ko defee. xale yi gën a xam ku ci nekk fa nga dëkk. loolu dafay fàttali li nga xamante ne moom la Senghor doon wax mooy enracinement. Ah donc être fier de ses de ses origines être fier de nga jóge et comme si tabaski bi lañ jóge ñu bëri dañu daal di ñibbi seen dëkk. Mhm. donc dafay baax ñuy def ay affaires yu mel nii voilà di wane la verdure mais c'est c'est c'est il faut dañuy mhm. wane seen seen origine wane seen dëkk et puis wone aussi à travers ça la beauté du Sénégal. mais na mais bien sûr man mii da dem ba Vietnam man Dakar Ndiaye gi. Vietnam ngay dem man il faut ma photo. yow nag ay mbëllëxee Saint-Louis fu soxla. waaw man sama cas day xaw a compliqué. yow da dem ba fan Vietnam waxal rek man bàyyi may recevoir. non man en tout cas mën naa dem waalo ngij ni Mhm. mën naa dem Casamance Kolda mën naa dem Vietnam comme mën naa dem fii Yoff si Libreville yaa gis nga loolu cocktail molotov lañ may woowee <laughs> mairie internationale en tout cas lu lu am solo la gis naa ni yaay ñu ngi utiliser ci Twitter bi nekk na lu lu lu rafet quoi ku nekk dem sa village wala mhm. dem sa fi nga xam ne foofu nga jàpp cosaanoo wala mhm. say waajur cosaanoo fa nga dem ci champs yi nga dem benn lieu bu cool nga photo wu partager ne préciser dëkk bi nag dina permettre ñenn ñi nga xamante ne comme yow wala ñeneen xam xamuñu fenn Dakar rek lañu xam en réalité. ku la ma fenn moom Ndiaye bàyyi présomption waxal rek. Dakar rek rek rek la xam musu dem Casamance musu dem feneen. Eh, xamuñu dem naa Cap Skirring dem naa Kolda lekk fa kaldu bu neex. maa ngi leen di nuyu sax maa ngi leen ci ci ci réseaux sociaux yi ndaxte du rek parfois def vidéo def live wax lu bon wala wax lu mhm. ñaaw am na ay mhm. action yu positive yi nga xamante ne xale yi ñu ngi koy def te léegi yow remarqué woon nekk sax léegi jeunes yi ñoom ci boppam dañuy revenir en fait au sources c'est-à-dire made in Sénégal bi ni ñu ko jëlee mhm. euh, euh, retour au sources bi euh, léegi doo déggati kenn ne la bon man damay voyager à l'extérieur pour dem dañuy préférer dugg à l'intérieur dem ci Fatick dem découvrir en fait lii lu baax voilà la la euh, le Sénégal et et sa beauté lii lu baax la au delà de ñu ciy gën a ñaax suñu influenceurs yi rek ñi mhm, mhm. ñuy jàppee ñun ay influence Prési Cissé mhm. ay ñoom Brésil euh, waaw ñu ñuy préciser wala tamit parfois da siy baax ñu leen di tuddaale tuuti. et puis ñu leen ñuy defaale genre genre découverte yi. Duudu moom da koy faral di def. Duudu fait des vidéos moom day dem ay Lompoul day dem ay Fatala. yooyu c'est bien c'est toujours bien à su ko defee ñu bari ñi leen di suivre di jàng ci euh, yéen réseaux sociaux yi tamit côté bu positif yi. Mhm. loolu waral tamit ñu koy wane ñun fii dañ leen di sensibiliser en même temps di leen informé information yi site d'information yooyu yëpp. Mhm. xëyee tey mooy Guy Marius Sagna nga xam ne dañ ko arrêté nag euh, moom la ñu xëyee tey euh, ci suba dañ ko arrêté et ça devant la préfecture de Dakar. Mhm. donc euh, ñëpp xam nañ nekk ne monsieur le ministre de l' intérieur dafa interdiroon lépp li nga xamante ne moo di rassemblement. Mhm. mais moom bii di activiste Guy Marius Sagna dañu yëgal que ne moom dañ ko arrêté par la police donc dafa ñëwoon déposer une lettre d' information mhm. pour que les étudiants maanaam étudiants yi nga xamante ne dañ leen orienté dans le privé pour ñu mën a une marche pacifique alors que dañu interdire lépp li nga xamante ne moo di rassemblement ak mm-hmm. li nga xamante ne moo di ay marche donc nee nañu nag force de l'ordre yi dañu daal di jël li nga xamante ne moo di téléphone certains journalistes yoo xamante ne dañ doon jël ay images donc loolu la ñu xët yéene kaay yi daal di ay photo wala vidéo yi ñu jot wala euh, tamit ay site d'information yi nga xamante ne ñoo nekk en ligne bien sûr mm-hmm. ñoom ñëpp moom la ñu xëyee tey ci euh, seen euh, ay information leneen lii mooy toujours di leen insister ngeen ni wéy di suivre site d'information bu euh, groupe Futurs Médias muy IGFM sn ay mën nañu wax tamit ci bari gis naa vidéo euh, bu ñu partagé ci weekend bi mm-hmm. mooy coowal euh, yëf yi États-Unis yeeg sénégalais bi nga xamante ni mm-hmm. wala famille sénégalaise bi nga xam ñoo ci ñàkk seen bakkan mm-hmm. ñoom defoon nañu rassemblement dajaloo doon ñaanal wala marché ci ci ñi nga xamante ni aussi ñoo ci ñàkk seen bakkan mais yëf yi fan la foofu. waaw wax nañ ci semaine passée mu nekk nouvelle bu tiis mu nekk lu metti tamit mhm. loo xamante ne fii Sénégal nakarloo nañ ko mhm. donc comme ni nga ko waxee am na marche boo xamante ne daal dinañ ko def foofu ci association des sénégalais yu nekk foofu mais ci kaw loolu tamit suñu njiitu réew mi nga xamante ne mooy monsieur le son excellence monsieur Macky Sall le chef de l'État moom tamit daal dina wax ak euh, euh, ne moo di compassion occupation nag xaw ma nu ñu koy waxee ci olof bàyyi ma mm-hmm. wax ko ci ci français rek waaw ñu ñu ngi tiislu loolu voilà léegi nag nee na moom tamit daal dina maye li nga xamante ne daal dina maye li nga xamante ne moo di 6 million au familles euh, endeuillées par la perte cruelle de leurs cinq membres ba pare en euh, texte yi dafa yónni ki nga xamante ne moo di consul général monsieur El ndaw Ndao mm-hmm. à Denver moom nag ki nga xamante ne moo di jiitu réew bi daal dina promettre rapatrier li nga xamante ne moo di corps yooyu nga xamante ne mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di faatu fële ci incendie bi aussi ci euh, réseaux sociaux yi week bi mhm. euh, sénégalais yu bëri doon ko partagé ba ci way juru ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan doon def mhm. ay témoignages euh, mu nekkoon image yu triste yoo xam ne sénégalais yu bëri partagé nañ ko mu nekk lu metti lu tiis encore une fois ñuy présenter suñu sincère condoléance à la famille mhm. mais aussi il y a des nouvelles Mamadou de fële nga xamante ne Denver ndax ñu ngi ñuy yëgal que ne une forte récompense de 14 environ huit millions de francs CFA moom la euh, waa euh, police bi proposé à ceux qui vont donner des informations sur les auteurs de l'incendie maanaam dañuy dañu teg li nga xamante ne mooy valeur huit millions de dollars pour mm-hmm. boole pour képp ku am indice wala information si ñi nga xamante ne ñoom ñoo créé incendie boobu ñu daal di ko joxe donc chaîne Fox 31 bi nga xamante ne moom dafa interviewé ki di Pape euh, jibi Diol avant mm-hmm. conférence de presse bi moom tamit moom moo joxe information boobu loolu baax Euh, en tout cas ñu ngi ñaan yàlla gën a leeral mbir moomu mais surtout di jaale ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee. Mhm. ñooy famille ñoom Jibi Njool ak famille ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan foofu ca euh, Denver ca États-Unis leneen image yi gis naa euh, internet yi di ñu proposer ay image xam na d'habitude depuis semaine dernière ñi ngi ñoom ñooy proposer mhm. dañ koy teg fii ngir ngeen gëstu tuuti ngeen xool wala ngeen wax ñu ñan la ñoo nekk ci ginnaaw image bi gis nañ fi def nañ fi image yu Kalidou Koulibaly Youssou Ndour moom gis naa ni ñëpp ko trouvé woon mais tey bii am na benn internet bu proposé image bi mën nañ ko xool voilà kii la ñuy laajte kan la euh, xam naa image yi internet fan la ñuy jëlee yi image daal être ci internet bi xam naa ni ñu maîtriser internet bi. ah waaw yow xam nga génération hmm? sax la ñuy wax. ñi juddu ñi juddu démb démb. 2000 waaw démb démb man laay wax. ñoom ñoom ni ñu ko maitriser ñoo ñoo ñoo ñoo ko dàq sax donc euh, ki ñu leen won nii xanaa ñu jox leen benn indice rek man. image bi dafa métti de nga foofu. bu indi dara bàyyi ba suba ñu ñoom seen bopp nañ naa la wax fii diw <laughs> ne diw xam na diw la dina fi wax comme ni ñu ko waxee woon ci Youssou Ndour bi ko waxee ci Kalidou Koulibaly kon nag Aïcha avo kii ñoo ko ñoo ko proposé ak hashtag bii di sunu net suba kenn dina ko trouvé wala ñaar wala ñett boo xefee boo xoolee léegi ci internet bi léegi mhm. soo ubbee di nga gis ñu bari daal déjà commencé ko trouver leneen li mooy yan image du jour nga indi tey wala yan lañ proposé. waaw ni nga ko waxee nag dañuy proposé parce que léegi moom comme ni mu ko waxee sànq euh, internet yi daal dinañ jël émission bi daal di ko def seen émission bopp seen yëfi bopp. Mhm. donc ñoom tamit dañuy participer ñoom ñooy le troisième euh, chroniqueur wala le troisième présentateur. Mhm. ndax ñoom ñoo ñuy indi li nga xamante ne mooy image waaw mooy ñoo ñuy ñoom ñoo ñuy indi li nga ne mooy image yi ñuy daal di proposé donc bi li leen di proposé moo di euh, ministre de l'environnement bi est-ce que euh, xam ngeen nekk ni si week bi on a euh, la journée de l'arbre mm-hmm. c'était la 37e émission euh, édition plutôt mm-hmm. te journée de l'arbre boobu waaw c'était hier mm-hmm. donc dañ ne woon c'était sous le signe de baw ba donc dañu gis nag ki nga xamante ne moo di jitu réew bi di daldi di planter li nga xamante ne moo di arbre pour donner le bon exemple mais internautes yi nag ñoom dañoo vaar uh-huh. dañoo indi benn image yu ministre ah, de l'environnement waaw ne nii dafa taxaw si kaw basang di arrosé alors que président Macky Sall bi nga xamante ne mooy GFM moom daa sukk ci suuf si di daal di di planté nag mën nañu leen présenter image vidéo bi ndaxte je vois que ni bi tamit def na buzz ci week bi diggante démb ak tey ñëpp di ko mhm. partagé ci réseaux sociaux voilà gis naa ni vidéo bi image bi ñëpp di ko di ko partagé style bi et puis le fait que mu am humilité wàcc ci suuf laal ci kii bi e comparé nañu certes mais image yu président Euh, de la république bi gis naa ni ñëpp a ngi ko doon partagé. ci whatsapp bi ñëpp di ci partagé. am na sax ñu doon ñu doon titré naan donner une image à ce titre am ñu doon wax le père donne une leçon d'humilité à son ministre bon euh, internautes yi moom xam nga ñoom ñoom. ils sont très forts euh, pour trouver des titres yooyu donc lii daal moom moo wër li nga xamante ni mu di réseaux sociaux bi depuis démb. mooy démb bi ñu def journée de l'arme. journée de l'arme la 37e édition. Mhm, loolu baax na beneen image wala vidéo wala beneen image. non image la bi mhm. image bii nag euh, damay naan image reelu na mais à méditer. Hmm. na ñu naan àdduna dafa gudd tànk. dëgg la xoolal image àdduna dañ koy dégg. Euh, àdduna dafa gudd tànk la traduire nii. daal àddunaa ngi nii. dëgg la de. <laughs> waaw <laughs> puisque daa gudd tànk ñu ne ñu daal àddunaa ngi. <laughs> ah ok voici les chaussures de àdduna. waaw. Euh, àdduna daa gudd tànk. dafa gudd tànk daa ba croisé donc euh, ñun ñu woon ñu rek li nga xamante ne moo di dàll àdduna bari na ay image yi nga xamante ni yéen internautes yéen a koy choisir di ñu ci taggee wala ngeen def hashtag bii di sunu net moo tax ñu koy partagé ndo ak yéen téléspectateurs yi mais surtout yéen ak internautes yi am na beneen image en tout cas bi am na solo de. waaw bi am na solo mais bii ñëw tamit am na solo parce que ndeysaan dañ ñu woon nekk ne euh, nga nekk riche que nga nekk pauvre. sa mhm. dépend yow yow yaay nañ koy waxee sa sa ni niñ koy toggee ba mu neex yow yaa koy xam daal. yaa ngi comprendre mhm. donc ñu xool image bi. gis ngeen kii ngeen gis nii nee na quand bien la pauvreté même un riche peut être jaloux de toi xam nga fii riche yi en général dañuy bëgg genre yi mi ngi set mi ngi rafet te il s'est contenté de ce qu'il a boo amee salaire cinquante mille waaw waaw jàppal ni nga ci normal mm-hmm. boo mm-hmm. jàpp ci te dund ci normal bu yóotu mukk lu nga xamante ni na ko rappeur bay waxee sax mm-hmm. noosu noos 1 million waaw 1000 francs ma noos 500 ma noos 500 ma noos 5000 na noos kon jeex na image boobu baax na <laughs> mais tamit bari na ci ay africain wala sénégalais yi nga xamante ni aussi dañuy def euh, tabac ci réseaux sociaux yi mm-hmm. Euh, nga tudde leen success story ñoo xamante ni d'ailleurs euh, dañ leen di sax di nominer mhm. bari na ci ci yenn euh, challenge wala yenn yi nga xamante ni pour di identifier gën a xool ñan ñoo gën a ràññeeku mhm. ci dëkk bu ci nekk ci réseau sociaux yi Sénégal fii ñu am ci Aba nekk fii ci kër gi Aba No Stress nekk humoriste nekk animateur nekk koo xamante ni ku ñu xam ràññee la lool ci réseau sociaux yi mhm. ñu idan ñu boole nominer ko ci les Adicom Days les Days lii nag moom vraiment dañuy insister internet yi. ku ci mhm. nekk mi ngi mel ne Sénégal bi football yi rek. Mhm. waaw bon lii nag benn genre de concours la bu nga tudd Africa Digital Communication donc moom la ñuy tuddee Adicom Days. Mhm. donc euh, ki nga xamante ne mooy suñu Abba No Stress interna international sax mhm. laa koy woowee moom moom la ñu nominé parmi les acteurs francophones de cette année donc information bi nag ñu ngi ko euh, partagé ci mhm. euh, ñi nga xamante ne ñëpp ñoom ñooy safoo di seetaan li nga xamante ne moo di vidéo Abba yi. ñu daal di ko voté parce que ay vote la. mais nan la vote vote bi nan la il faut nga insister expliquer. gis nga bu ñu duggee fii dañuy dugg ci connectez-vous après boo duggee information yi foofu. waaw da ngay joxe information yi daal di apporter sa vote gis nañ ne que a plusieurs sénégalais yoo xamante ne ils ont été euh, nominés. ku ci mhm. ku ci nekk ci sa catégorie cuisine ah. contenu digital. Mhm. mais Abba moom dañ ko xamee ci li nga xamante mu di comédie. Mhm. ak euh, reetaanlo donc euh, moom dañ ko nominé te loolu aussi. sacre la ci catégorie humide sacre la c' une fierté. donc ñu ne woon rek dañ koy. partagé ak yéen ko sax. waaw bien sûr na si ñëpp jàpp. internautes yi nañu ba nañu nañu nañu voté surtout ndaw ñi. les mhm. jeunes yi ndaxte ils sont tellement scotchés. connectés. Mhm. Mhm. Euh, chiffres yi ce n'est pas encore exact mais ñaata la ñuy wax sur Facebook Sénégal plus de 2 millions 3 millions de Sénégalais yoo xamante ni. ils sont connectés sur Facebook ils sont ñu nekk Facebook ñu nekk ci yeneen réseaux euh, sociaux yi tamit nañu dem euh, connecté voté pour Abba No Stress sunu fierté la pour gagner catégorie bi. on mi ngi mel ne Sénégal buy joué rek. mi ngi noonu nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko voté leneen li. leneen lii euh, beneen euh, xale bu jigéen la bi yoon fait la fierté de ses pairs en tout cas man elle fait ma fierté mhm. alors c'est la meilleure élève du Sénégal qui a été reçue euh, par le président de la République mhm. et en plus de sa bi muy dem daf ko yóbbaale li nga xamante ne moo di livre mhm. moom la daal di bind mu daal di ñëw jox ko ki nga xamante ne moo di président de la République su ko defee président bi moom tamit ñuy wax rek ne livre boobu c'est son premier roman livre bi mi ngi tudd visage bravo bravo parce que fële la nekk étudiante en première année prépa scientifique euh, au lycée Grand Louis mhm. euh, le Louis le Grand de Paris plutôt voilà mu nekk euh, suñu fierté nekk aussi di ko ñaanal bonne continuation moom nu mu tudd Diary la pël la da nga a kii la rek Sow la sant <laughs> keneen ki di Amer Sarr la moom laa bëgg <laughs> beneen jaari sow bi nga wax nii. mooy pël bi. Euh, séeréer bi tontu na ko. léegi séeréer bi tontu na ko mu di euh, Ahmed Sarr alors benn euh, li ñuy naan expat la entre guillemets mi ngi États-Unis mais moom dafa bëgg a dëkkam daal di ñibbi si benn application boo xamante ne day utiliser li nga xamante ne mu di géolocalisation donc mu nekk une application boo xamante ne c'est une application assez inédite on va dire mi ngi tudd Bizdak business Dakar donc application bi li muy def moo di boo ko téléchargé yow boo nekkee consommateur bu dee da nga soxla. Euh, par exemple dàll wala chemise wala dara application bi da lay yónnee notification donc li ngay nekk di wër euh, euh, ay objet wala di wër ci boutique yi di ko seet c'est c'est révolu maintenant on est à l'ère de digital mhm. da lay yónnee saa yoo si biir boutique bi rek si wetu boutique plutôt dañ lay daal di yónnee li nga xamante ne moo di benn notification et puis aussi entreprise yi ñoom dinañ si mën a affilié wu pour wàññi li nga xamante ne mooy seen budget de communication non lu baax la bu ñu lu baax la ay sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci internet di jéem a fexe toujours defar joxe ay image yu baax wala di innover mhm. un peu ci ànd ak euh, li xew ci jamono mooy li mhm. xew Euh, ci mbiri internet yeeg nga xamante ni actuellement dafay yëngal àddina mën na gis nga bu ñu demee ba TikTok ak ay mbiri États-Unis ak Chine ak yooyu mhm. li nekk seen diggante mbir mi actuellement mooy yëfi TikTok waxoon nañ ko fi semaine dernière donc di wane ni internet moo ni toll mhm. loolu waral ñu leen dégtal ñun ñi waa TFM li nga xamante mooy émission di xew ci biir internet bi bari na chaque jour ñu indi lu leen reetaanloo ay images yu neex mais parfois aussi di leen gën di sensibiliser di leen jàngal li nga xamante ni ñooy euh, noonu la internet di doxee wala ni koy euh, utiliser nekk na lu am solo eh, indi nga ay images yu neex tamit quand même. waaw indi naa information baax na. waaw information baax na mais bu ñu jógee nii dañuy dañuy daal di suux rek inter noonu. Mhm. yaa ngi fàttaliku dañuy jàll dañuy jàll inter nii mais bu ñu jàllee nag sama maire yi nga xamante ne ñi ngi connecté ñoo xam lu ne ñor. Ah. ci émission bi waaw. si yow image yi ñu ñuy bàyyi rek image yu reetaan loolu kese leen intéressé ñoom dañ naan la carrément. li ngeen wax yëpp am na solo. Mhm. moom moo ñu intéressé dañuy reetaan dañuy a stressé. di bëgg di lekk di reetaan dañuy dégg ay information chaque toute la journée mhm. dañuy bëgg moment bi ñu pause tuuti reetaan mhm. nee na ñoom seen téléphone yi loolu lañ ciy bëgg di gis ay cakkoon mais balaa boobu dañuy jiitu ak euh, li xew euh, ci bitim réew ak mhm. week bi nga xamante ni aussi nekk na week bu xaw a yéemee fële ca euh, Côte d'Ivoire ak Euh, nouvelle bi nga xamante ni euh, président Ouattara def na ko ne dafay euh, briguer beneen mandat muy troisième mandat mhm. mu créé tolle ci réseaux sociaux yi mhm. internautes yi ivoiriens yi rawatina wax naa ko Sénégal ak Côte mhm. ñuy connecté wu même dañ koy utiliser foofu dañ koy utiliser fii donc Sénégalais yi ci bari doon ci réagir mais surtout ay réaction yu doy waar la parce que moom dafa daal di ne woon ne du présenté du présenté plutôt pour une prochaine prochaine élection présidentielle troisième mandat. Mhm. léegi nag finalement il a changé d'avis te de moom bi mu ko doon def président Macron bi France daf ko defaloon benn tweet euh, de remerciement di ko naan voilà je salue exactement de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle donc di wane nekk ni fii c'est un homme de parole ñu jékki-jékki toog sorewul dara dara dara mhm. mars bërka démb la léegi euh, monsieur Ouattara daal di ñëw ne moom finalement deux choses internautes yi commencé nañ tooñ li nga xamante ne ñooy politiciens yi. Mhm. ñun fii suñu dëkk am na ku def euh, li nga xamante ne mooy euh, euh, statut bi daal di ne virus du troisième mandat comme virus su coronavirus. Mhm. nee na deux cas confirmés un cas suspect respectons les mesures barrières. dafa ah. détourner li nga xamante ne. daf ko contextualiser ko. ak virus corona daan ne virus du troisième mandat. Mhm. deux cas suspects. maanaam am na ñaar ñu ñu ñu seen wax. ak un cas suspect deux cas confirmés xam naa dafay wax bu Guinée bi. waaw ak bu Ouattara. léegi suspect bi kenn beneen la ñuy xaar. waaw beneen la ñuy xaar xaw ma kan la nag mais neneen daal cas suspect daal di ne. Mhm. respectons les mesures barrières. ci internet bi la xewee te ñun émission bi loolooy importance bi loolooy solo li xew ci internet bi ñu dajale ko lépp daal di leen koy jébbal yéen téléspectateurs yi TFM yéen ñi nga xam ne yéen safoo groupe Média mais aussi yéen internautes yi yu ci bëri ñu koy proposé sax d'ailleurs ak hashtag bii di euh, net bari na ci ay messages yi nga xam ne jot nañ ko fii ba semaine bi jeex nañ dajale li nga xamante ni partagé nañ ko ak yéen ci réseaux sociaux yi ñu partagé ndoo ko ak yéen tamit téléspectateurs yi mu nekk lu am solo yéen ñuy suivre ci Facebook Twitter wala Instagram euh, mairie maire yaa ngi xaar vidéo yi. waaw maire yaa ngi xaar vidéo yi moo tax nag euh, dama leen di bàyyeeg euh, benn maire boo xamante ne dafay daal di euh, bëggee li nga xamante ne moo di son Viviane donc mm-hmm. suñu suñu suñu noppee rek daal di tàggoog yéen. Mm-hmm. Mamadou daal di leen jox dig daje li nga xamante ne moo di suba ci beneen émission ci li xew ci biir internet bi ñu daal di leen jukki lépp li nga xamante ne moo fa jot a jaar. loolu ko mamay mo angry yala. Ay! kaarab bi laa laal kaarab bu gën a garaaw chauffeur bi dafa wàcc ne ma freinal parce que maa bi nii gisoo maa rek oto bi dem Sénégal la ma neex barki Sëriñ Bamba asay maa téye gars yi nii frein su ma rek dañuy saaraan moo tax ma nelaw ci nii frein bi nii. garab bi laa laal garab bi gën a garaaw chauffeur bi dafa wàcc ne ma frein bi nii gisoo maa frein bi nii ma bàyyi rek oto bi dem. <laughs> Sénégal la ma neex barki Sëriñ Bamba. <laughs> asaay maa téye gars yi nii. frein su ma bàyyi rek dañuy saaraat moo tax ma nelaw ci nii frein bi